yàgg nañ ko fee màggal lool ngir wéyal ndigalal sëñ Tuubaa ci dundal guddi gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ci digal sëriñ bi du ko jëfee te di ko jéem a ji di ko jëfe ci dama ko daan defe ci njaaram ndax maanaam suñu waajur moom dafa taxoon moom daan fekkee ah, aw doxinam yëpp dama ko daan defe bu bu bu ñu fi bàyyi itam ñoom ñu wéyal ko noonu ñoom it ñu ñu ñu daan ko ànd ak ñoom ñu bàyyee na ko ñu koy wéyal rek mooy jàmm yàlla ak uh, dund sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam te di ko jàmm ci sunnam te uh, di liggéey Sëriñ Tuubaa liggéey Sëriñ Tuubaa gën a rëy bi uh, loolu rek bis bii dara. xibaar sëñ bu jur si mbaaram yi wax na ne moom day musta am jot waaye bar na nit lu mu ko daan wo ngir bëgg bëgg ag ci mom te du mëna ag ci mom waye ñepp xamoon nañ ci mëna a bu gàmm ñëwee bis bi ñëwé rek bo xam ne kii ci àgg ci moom teewul la rek da na la yomb loo xam kon bis mom yépp mom yitti la na ko lool ba tax na daan rek ci ci biir ak ci rek di ñëw di taxaw ñi nga xam ne ñooy guddi gi ya, lu jot rek ñëw bukk ñëw indil xëppal xëpp rek gis nga boo gis bu na nga gis lu ci ci ko def ci bis bi ak lañ ci am nga xam bisum bu mag bi jàll muy safara bi na ko ci waaye guddi gi tey guddi tey yi moom li mu ci wax li mu ci dëlee ak li mu ci wax ne ku ko lu ci waaye def da ko ci am ba ci xare yi yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne moo gën a mag lépp nga xam ne ku ko fekke raw nga ko ko wax ci ne loo ci def doon ne benn dërëm la wala tiyobu ñam lu ma doon da nga yàlla dana la yëgal ci euh, yool bu mag boobu xare yooyu mag yooyu nga xam ne euh, nit ñi daan nañ ko ànd ak yonent bi loolu ci nekk rek euh, fonk lalu lalu lalu lalu rek war naa tax rek kenn ku nekk war a ci def yitte gën koo fonk gën koo xam ne te xam ne maanaam yooyu na méttee woon mais jaay seen bakkan lalu fetti eh, dal jaay si dal ñuy dee di daanu eh, loolu na méttee nga am loo xam ne daa ànd ak lalu nga xam ne da nga sa coobare ak bànneex man man am yàlla mën laa ci daraja yooyee eh. loolu suñ am solo la ba xamne nañ ko sant seigne touba bu baax mom mi nga xamne mo nu may ci sañ-sañam ak daraja yonent bi ak may gi xam ci yonent bi lim ci wax ta lu mu xass wax ci yonent bi rek loolu moom des na ci amelu gëna kawé a lolu nañ ci sant yalla bu baax baax baax ñi nag ñoo ko fasiyene yéene jëfe ndigal li nag ni ko rek ñu fas ko bi guddi di ci fasaare nag képp koo xam ne ki rek yaakaar na Sëriñ Tuubaa rek ak képp koo xam ne ki euh, yaa ci diine lislaam te ko rek ndax Sëriñ Tuubaa moom wax ne képp koo xam ne ki yaa ngi ci diine lislaam te rafetal ko rek yaa ngi bokk ci biiram njabootam kon nag ñoo ngi ciy fasaale ñëpp rek te ñëpp rek taala barakaatu ñu ngi leen di nuyu baax baax ci kenn ku nekk turam ak santam day ñaan cheikh seydul moxtaar sunu borom guddala fanam lool te mee ko ak wér di ñaanal sëriñ suñu wajur wi di suñu sëriñ suñu abdourahmane ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te mee ko ak wér lool mee ko kattan ba yéene ji am ko wajuram bu baax ak ko baax suñu borom ko bu baax ban ko ko barke Serigne Touba ak kep ko ànd ak moom ñu ngi nuyu mboolem murid yëpp itam di len siyaar bu baax te di leen ñaanal jàmm ak xéwal tolluwaay bis moy wajal ko comme ni ko euh, ni Serigne Touba diglé moy tax si bi sunna wajal ko ci sunna lepp tegu ci aw yoon ci ndigalu Serigne abdourahman nga xamné ne lii bañ koy sos serigne bi bam ko daan sos moy dafa daan wax ne bu gàmmu masaan jot dañ da woo ñun ak dong yi nekkon ci kër gi mu ne nañ war koñ bi yëpp bu kenn togg añ bu kenn togg reer ñu def ko ay ati léegi nag ci lañ wax ne waa koñ bi yëpp gis ne lii koy war na ko wutal ab dayre boo xam ne at mu jot waras na ko gàmmi noonu ñu def noonu dajaloo daal di ñëw ci sëñ bi sëñ bi rafetlu ko lool bég ca lool am mbégte mu réeré mel ni li mu doon liggéey suñu Tuubaa ak li mu ci doon yot mu ngi ñëw ak ci na ci moom samay mbooloo bu dajaloo ren ànd ak moom ci liggéey suñu ci la ñu tuddee nag daayira Nuuru Daarayni li mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko wéyal boobaak léegi na man na fukkaat ak juróom teg tuuti ñu di ko ànd ak moom ci bi daayira bi sosoo ak léegi waaye jamono ji ñu toll wax may wax ak yéen ñu ngi waajal waajal bu am solo ci waaj ñu ngi toll ci wàllu wàllu bernde su suba jàng nañ fi alxuraanu karim ak lenn ci limi xasida euh, bu guddee itam incha allah ginnaaw ci ngoon gi nii dana am ay siyaara yoo xam ne day am incha allah waaye bu guddee dinañ ko waajal ci ay xasida jàng alxuraan ak xasida ci ay lim ni ko Sëriñ Tuubaa daan waxee defee ci guddi gu nekk dana jàng fukki kaamil ak benn bala ñoo tàmbali jës bu bi ak muwaahib ak mat ak barsan bi te noonu nga xam ne noonu ko Sëriñ Tuubaa doon gàmmoo ca fële ca njaarim noonu lañ koy gàmmoo sëñ bi it noonu la koy defee ni Sëriñ Tuubaa doon jógee te xëpp nit ñi parfum at yi yëpp noonu la koy defee te xëpp nit ñi di leen di di leen soññ ci liggéey bi itam ak it kuréel yi toog ñuy jàng jës bu ak mawaahibu ak muxaddimaat ak barsan ñu di ko yëkkate ba fajar jot nga xam ne moo fajar gi daanaka ak àggal bi mook fajar gi ñooy tolloo net nit ñi di jàng di awu ti sallallahu alayhi wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax am na barab yoo xam ne ñëpp dañ fay tolloo di fa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci képp ku nekk ci biir baas bi noonu lañ def di ko fanaane noonu it moo dëppoo ni ko Sëñ Tuubaa diglee taxsimuhu bi sunna hmm. mooy ñu di ko def ci sunna euh, ci biir guddi gi itam li muy daw li njàng mi alxuraan li muy daw yëpp euh, lépp loo xam day aajuwoo ci berne ak nit di ko yittewoo dinañ ko séddale ci biir baas bi ak lu ko war insha allah loo xam ne ñu ngi ko ci sàkku di ko wut yàlla nañ ci dajee ngërëm a sëñ Tuubaa te am nañ ko ci bu wóor a wóor te daaw rek lañ toogoon fii sëñ bi wax ne yonent bi ñëw na fi sëñ Tuubaa ñëw na fi te loolu yi am nañ yaakaar yi nii ñu ko waajalee itam noonu la fiy teewaat insha allah rabbi وسيم توبا نيميلون سي يونس صلى الله عليه وسلم لولو كين مستمل نونا كين مست واخيك نو مل نونا محب محبتي بالمختار سيدنا بالمخالين واهلنا ورضا دمي واهلي واهلي ودمي واهلي خامني موكو غنال درتام مو غنا اي دومام مو غنا لو نيك كون سيدنا توبا غن غن غو يونس صلى الله عليه وسلم غنال ليب nga xamne lepp lo xamne Euh, moo moo ko moom la yonent sallallahu alayhi wasallam foofu la tegoon yonent ab tànkam foofu la Sëriñ Tuubaa tega ab tànkam ba ni mu demee mooy xaaj ko ci ñaari xaaj ko dundam bi yëpp salaatu sitta bi mata sitta taati batament di say genn wàllu jox at mi da koy julli da koy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn wàllu at mi mu koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ba ni dem delluwaat suñu borom subhanahu wa taala kon lii itam liggéey bi day am ñu bari ñu ngi ko xam ne dañ ko dañ ko ànd ak ñoom ñu ngi ko ànd ak ñoom nag ay daayira yu baree baree bari nañ bokk na ci daayira bi njëkk mooy fédération Sirrul Masoul bi nga xam ne moom la sëñ Abdourahmane Niang moom ci Touba Guédé ak li ko wër lépp ak Sourah euh, nga xam ne mooy daayira Ndindi bi ko jiite maa Yamar Mbuub euh, ak euh, waa daayira Baxdaat ki ko jiite sëñ May Saw ak sëñ Mbacke Diagne waa daayira Asalam sëñ Moustapha Saw waa si sëñ Cheikh Sylla waa Guédé itam Baye Moussa Seck mooy daa jaaribati boro ak ak ak bi nga xam ne moom lañ fekk si ak daayira seen ma xaytu ndaw ak daayira yoo xam ne bare bare lañ ñu ngi ko àndiwaat fay ak daayira bi nga xam ne moo nekk biir sura gi nga xam ne ñëpp dañoo manko nekk benn mu tudd diwaanul murid waa ñi ko ñi ko ñi ko seq nag mooy daayira sopp Serigne Saliou ak daayira euh, sopp Serigne Saliou bu nekk Touba Guédé ak bu nekk Touba Sourab ak euh, Jaalibatu Maraaxib ak Asxaabul Janna ak ak ak euh, Jaalibatu ak sopp Serigne Fall yoy dañ ko andal ñun ñëpp ay daayira yu bari bari lañ ñoo xam dañu and ak señ bi ci liggéey bi fasiyene ko and ak mom fasiyene asap sàkku ci ngërëma sëñ Tuubaa loolu daal ñu ngi ñu ngi ci ñu ci waccay wi ni ñu ko andal daal ño nek non ñu jéglu jégalu bu baax a baax nag ci kanamu señ bi ñu waxe ak ak wa ahlu khidma bi nga xamne wa señ euh, sëñ Mourou Makhtar ta mom moko jité kon ñu ko andal daal ci liggéey bi yaatu na lool lool lool lool waaye ñu yalla señ tuba sëñ defal ñu ci ngeeramam te defal ñu ci def tawfeex te bu ëllëgee ñu bokk ci Sëriñ Tuubaa ci réseau bi. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf.